nag bëgg naa waa Sénégal yëpp jàppale ko surtout monsieur le président Macky Sall ndax keroog bu ñuy bëri combat toujours ba mu demee ba mu demee si Macky Sall ni ko monsieur le président mi ne ma dama bëgg Abdoulaye recevoir ma bu mu xëyee bu mu ko waxee Abdoulaye damaa xëy Pape recevoir ma kenn damaa jiw rek mu doon ñu bàyyi ma ko ne bu doon sama sama mu woo bu di RFM tey ko may ko kër ndax euh, bu di RFM nii wax dëgg Sall mënu la détail bi Serigne Touba la man ndax dafa mu doon déwénee te dañ koy génnee kër man ndax wax dëgg bu doon sama sanga moom gars yi jàppale ko barke salaatul faatiha wër na Seydina Muhammad laa laa laa laa mën wax te Sénégal daal yàlla na am jàmm ci darji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke alxuraan karim wa salaam. boo di kon instant yi dañ la génne. waaw euh, yow je suis euh, làmb nii la. gor su ne gor lay mën a xam du ñu mën a yuuxu nag ndax bëgg ñu wax ci tele waaw ma nekk ma nekk sa ma nekk sa métier di liggéey. yow ay xale yoo xam ne dama leen di jàngal xam-xam. Mm-hmm. bii tere bii yàlla def maanaam autorail bi di jaar foofu fa ma newoon dañ ko fa dañ ko dañ dem place ma yoroon gars yi dañ fa nekk bi may génnee dem Côte d'Ivoire mooy sama tukki boobu noonu waaw suñu combat ma waaw Côte d'Ivoire dañ maa dañ ci ginnaaw mooy gis nga dama daan liggéey ay armes ñoom mooy ko jëndoon presque sept cent mille ay machines yu ma amoon yëpp dañ ko kama yore mais waxuma ko parce que boo ko waxee tamit la ma daloon 2000 rek moomay dal ndax 2000 dama nekkoon ci inondation mm-hmm. damaa wax ba ba dee mm-hmm. kenn wuyuwuma dëgg la ma ne nag comme man dañ maa ja sàcc lu fa ay 2 millions 3 millions. Mhm. duma ko wax. Mhm. ba léegi damaa noppi. yaaw jàll laa waxoon na ko fa ma newoon dañ ma faa luye woon mais borom kër ga soxna kër ba nangu na ko. ab ma tontu la man la bu ne ko jam ne Abdoulaye kenn waxatu ko. kenn waxatu ko ma ne kon kon yaaw jërëjëf li nga def rafet na. Mhm. kon dèjà man du mën lu dul wax président. Euh, mu di ko santi ko gërëm. léegi ban message ngay euh, envoyé autorité yi pour que ñu man la aider wala genre de. moom foofu laay waxee. vas-y nañu ko jàppale. maanaam 2005 bu ñëwee ci ci ci làmb 2005. Ah, dafa yor métier am ànd ak Youssou sama xarit sama doom lañ ndax Youssou maa moom ñu def sa sotti ci ak def si la ñi ma ànd ñëpp transmisé ak Kaffré rek la mais 2007 bi ma ñëwee fekk Macky Sall ca Fatick maa liggéey benn œuvre d'art boobu Balla Beye ak Yékini lañ ñu def benn benn grand drapeau. man maa yër man maa dem ba si miss nuyu ko ne ko félicitation. Mm. fekk boobu yaaw saan sama xol sedd na ndax lañ ko defal. mën nuyu ministre mu ne ko monsieur le ministre euh, Macky. Mm. kontaan naa. ndax li nga defal yaaw daal di koy décorer. maa ko njëkk a déco maa njëkk a décorer président ma Macky Sall. dëgg la maa ko njëkk a décorer. xam naa nag loolu boo ko waxee bu ko bu ko bu ko réfléchir dina ko fàttaliku. di nuyu Marème Faye Sall bu baax di nuyu Aldo. mais nag wax lu bari woon. Mm-hmm. gis nga yaaw mi ku ñàkk ñaane ngi nii. gars yi nag li ñu bëgg nag mooy. di leen si booro si booro suñu borom moo ëpp doole si boor waaye nag yéen Pape Thialis euh, Leewtoo gàcce ngalaama. Euh, yàlla nañu yàlla yëkkati nii sor bi ca Touba. ni sor bi yëkkati ko yàlla na borom yëkk yëkkati seen mbir noonu. moo delluwaat waxat président Macky Sall. Mhm. ñun ay jaam rek la ñu xeebu yu xeebu yu xeebu yu xeebu. di ñaan Cheikh Sidi Moukhtar su morom yàggal ko fi di ñaanal sëriñu sama xarit bi nga xam ne mooy sëñ euh, Abdou Karim Makarim laa moom man daayira sëñ Abdou Karim Mbacke bu dinaaw raay mhm. man njiit laa fa ba ma ba ma neewalee ci làmb ji ak ak sëñ Axma Mbacke boobu man daay jëwriñ laa ca mais làmb day day day day soppi doomu aadama kon maa ngi ñaan yàlla président Macky Sall li sa waay wax ñu fekk sama waa jàppale ma ci sama luyaas bi ma génnee ak ci problème yi ma nekk ndax yow moom njëkk jàppale <laughs> moom woo këram toggal ma ay ginaar defal ma na ma lépp dina baax d'accord léegi ñu dugg sa carrière yow moom waxuma la fàtte mais nit ñi moom kenn xamul fu lay fu lay kenn waaw waaw nit ñi moom fàtte nooñ ma mais mm-hmm. yaaw fàttewu ma ndax fu mu toll mi ngi may woo di ma di ma di ma di ma jox courage mm-hmm. kon sama phénomène bii kii mm-hmm. fàttewu ma